wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dañuy wax dinañ wax dinañ wax dinañ wax dinañ wax jërë ngeen jëf waaw maa ngi jégalu nag sànq dama ne woon ni que amul étude d'impact environnemental ma dadi wax la nga xamné préfet bi fi nekkoon Amadou Lamine gisse moko bind. mais dama len wax bu gëna a encore bi nga xamné ministre Omar Gueye bi nga xamné mo moo ministre de la pêche mom moko bind. Omar Gueye ministre de la pêche autorisation préalable d'implantation d'une usine de congélation à Abéné. Yakarna naa ci tubab moy usine bi nga xamné day jël ok lettre numéro 1953 la barre MPEM e la barre DITP la barre DN 20 décembre 2017 Mon Omar Gueye par ma lettre citée en référence je vous informe que d'autorisation préalable limitée aux produits congelés ne peut être étendue à la farine et huile de, poisson. Je crois que nous l'avons naa la voilà Moi, maanaam autorisation bi ma jox pour cette usine bi ngeen di jënd jëm diko congeler diko ko jaayaat munu ci am autorisation pour def huile ak farine de poisson ministre Omar Gueye Moko Binde. mais néanmoins les gens sont passés outre parce qu'il y avait une mafia derrière bi nga xam ne xalaatoon na ni que askan bi xamuñu sañuñu moo lu leen neex ñu def mais Yalla Daf tamit mu amoon fii ministre ba nga xam ministre de l'environnement de l'époque colonel Dieng le léegi général directeur de l'hôpital bañ demee seeti ko wax ko ko mu ne non loolu fi Sénégal ñi taxaw fi usine bu mel nonu te amul benn étude ma amul mu joxe ndigal ci saasi ñi ñu def enquête publique ki ñaan Ibrahima Sagna nek Ziguinchor moom la ñu yónni woon abene ko mu ñew def ci enquête bi bi enquête bi génnee le nom l'a emporté à 93 pour cent. colonel Dieng jël arrêté danañ dolaat délocaliser usine bi na fi jógee. booba ak léegi nag usine bi mënu fa jógee parce que am na ñi nga xam ne ci usine bi nañuy dund usine bi dox ñu ngi ciy dund usine bi bañ fa jógee ñu ngi ciy dundu waaye nag ñun dañuy nekk ay sénégalais te dama ne encore une fois moi au-delà d'être journaliste je suis un sénégalais bu dee nag <laughs> dégguma joolaa juddoo ma fi mais doomu Casamance laa quand même ah waaw dama koy wax

waru leen ko nangu da ngeen war a jóg xeex parce que loolu na leen constitution du Sénégal may léegi ci ñii nga xam ne ñoo doon ne dossier bi àggul fenn convoqué ñu monsieur le maire dañuy soob nangam sangam xaaral ma wax leen firnde bu leer nañ bu leer nañ nañ nañ nañ le euh, c'était bonne date le 9 octobre 2020 moi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Ziguinchor invite M. Victor Fansou Diata, maire de la commune de Kafontine fils de et de domicilié numéro de téléphone marié à une épouse à se présenter à mon cabinet ici au palais de justice le 21 octobre 2020 à partir de 9h. Je suis convoqué. Moi, monsieur le maire, Suleiman Kamara, Saliouk Samou, Malan Gata Marcel Yacine Ibrahim Koli 100 kilos ñooñu le juge bi convoqué te damay wax wax ju leer budul won corona bi ñom ñep ñi ngi ci kasso bi budul won corona bi ñom ñep ñi ngi ci kasso bi waye nak li ci kanam rawul bët ma ngi leen di gërëm yeen ñep di leen sant temps, 5 minutes. Hein. voilà euh, euh mbokki Kafountine maa ngi leen di ne rek gars yi tàccu leen seen bopp ci résistance bi ngeen def malgré nervi yi ñu fi indi merci beaucoup Moki Kafoutine ngeen ñëw wuyu si ñu euh, lii mbiru Kafountine yëpp la alors ñun nous sommes des membres de FRAP ci ginnaaw lañ fa la ñuy dem tant que tooñ deexul xeex du jeex bakkan lañ ci tek askan bi seen alal suñu alal la dañ koy xeex ba jeex voilà lima ma bëgg a wax mooy euh, mooy problème érosion bi ñun ñep gis nañu ñu geej gi mu ngi avancer bu baax a baax fii ci euh, Kafountine alors Kafountine doon dëkk bi nga xamné ne lu ko yor moy quai de pêche quai de pêche bii nii moom mooy dundal Kafountine di dundal dëkk yu nekk ci ginaawam ba sous région bi yépp

Euh, Mané maa ngi koy saluer di ko nuyu bu baax a baax tàccu leen ko ak équipe am euh, xeex nañu xeex nañu def nañ lépp ak notable yi ñu fexe ba jënd ay saaku saaku ceeb gars yi xool loolu ay saaku ceeb la ñu jënd gi ay saaku ceeb lañ jënd sol co sol ci suuf di ko tegle ci li nga xam ne moom mooy littoral bi pour géej gi bañ ñu wonnu bañ a wonnu li nga xam ne moom mooy suñu trésor bi mooy le le quai donc ñu ngi lancé un appel

pour m'exprimer au nom de la jeunesse euh, d'Abéné, euh, le président empêché. Donc là, je viendrai surtout sur euh, confirmer par rapport aux propos dont les gens ont dit que ce n'était pas juste. Donc, il n'y avait même pas une étude d'impact environnemental. Il n'y a même pas. Donc, le premier point, c'était une usine de conservation. Conservation dans la conservation, nous, nous, transformation de farine et de huile de poisson. Donc ça a été, ça a été une mensonge, m'excusez du terme, ça a été une mensonge. C'est là qu'ils nous ont trompés. Une usine de conservation. Mais tu prends même dans le cadre de l'environnement environnemental, tu prends dans le code euh, de l'AMP, l'installation d'une usine dans une aire marine protégée, c'est formellement interdit. Donc ça doit être en dehors des, des 100 mètres de la domaine maritime. Donc il est à l'intérieur de, l'AMP. On a lutté, on a incité, ils l'ont fait exprès, par la complicité de nos autorités. Donc en ah, cela, c'est que nous par, rapport à l'usine, pire et simple la délocalisation de l'usine. On ne voit absolument rien. On veut la délocaliser ah, ah, en, dehors de cela. Nous donnons, nous donnons aux autorités locales. Donc qui fait tout pour nous enlever ces salles politiques qui nous ont mis à Abéné. Abéné c'est un site touristique. C'est un site touristique. Donc aujourd'hui, l'implantation de l'usine a tué notre emploi. Donc en cela, ils se disent créer de l'emploi, ils nous submergent. Donc nous disons non à cela. Et ce qui est encore plus pire encore, c'est quoi qui vient sans une étude encore environnementale, C'est une implication de la jeunesse. Ils sont là à nous nourrir oui, ils vont construire des hôtels. Des hôtels sur quoi Qu'il y a des hôtels sur place, au moins qu'ils puissent les rénover. Mais c'est pour après sans parler de nos terres, dont nous disons non. Et on va se poser là, là jusqu'à la fin. Ok, merci. Euh, Je euh, sëñ bi Paul léegi nag euh, ñu dernier intervenant le vieux Salif Sambou qui est un membre du du collectif en même temps qui est un conseiller municipal de paire. mais de rek moo ko ñor moo au mu ñëw fii tey jërëjëf tàccu Salif Sambou. Alhamdulillah, rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin monsieur Guy Marie Sagna gaa yi toog leen gaa yi toog leen gaa yi toog leen gaa yi toog leen gaa am na loo xam ne nag gaa am na loo xam ne

maa ngi gërëm Guy Marius Sagna ak ñu mu àndal lu tax ma koy gërëm ñëw fi politique politique andi ko fii dëgg moo ko fi andi défendre les droits de moo ko fi andi lu doxul mu xam leen que lii ci yoon mu xamal leen li tegul ci yoon ñun ñëpp ñu jàpp ci ndax mu tegu ci yoon yàlla loolu la bëgg Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu la santaane yoon siraatal mustaqim ji si ji mari sadia lii mooy tànkam kon ku ko jàppalewul yaa ngi weddi yàlla bu mu at ku dox dëgg boo dul jàppale bul ñëw ku dox tànk jàmm boo ko bëggulee dara jàppale bu ko yàqal loolu mooy ji ci mari ñu waxee Saliou Sambou man mi sa bopp maa taxoon seen la sol là, parce qu'ils veulent pas que je la vérité dafa am loo xam le ko dans la commune de Kafountine en tant que conseiller de l'APR en tant que coordinateur de l'APR dans cette commune maa andi fii l'APR kenn andi ko fi man dans la rue Soubadakata ba un maa ko fi andi APR c'est pas les Mustafa Aloudia. Ah, c'est vrai. C'est une réalité. J'ai passé la nuit dans son lit deux fois, trois nuits pour l'aider à constituer le bénévolat dans sa commune. Quand il m'a fait ligue, au kofi. ça ne passera pas ah le maire Victor, nous à ma dernière, à ma dernière réunion de Belo Bokayakar, juste après les élections. C'est là qu'on ne de toog Mais ko lenge ma que cadre intellectuel la mën pas en tant que socialiste euh, euh, sociologue dina mën a au moins si a mbokk

Euh, monsieur Sayan maa Khamandek, la commune de Kafoutine a été victime de détournement de deniers vraiment nakar population de population Kafoutine fait une marche oh les médias ils ont fait une marche c'est une petite quai de pêche pour dénoncer cela Maintenant, détournement bi naka lay demee d'abord monsieur le maire Victor Diatta ak ñoom ki nga xam ne que moo de la que c'est faux ils ont confectionné de faux tickets yoo xam que bokkul ak des tickets di di alors di les pauvres femmes là di ko jaay les les les malheureux man là. taxaw xaalis boobu ñemoo ñu ko sa yóbbu trésor ñu ngi ko dugal seen poche est-ce que loolu baax na yamu foofu et puis mu ngi koy def des années et des années maa ngi koy xool di ko xaar ba da ko kap yamu yam yamul foofu fu mooy yem foo xam ne Cap Vert la ñu yaakaar la koy dépêche alal boobu la ñu yaakaar om pour defar Cap Vert mané ko nu ci loxom dougal ci poosam redevance yaa fi ma maa ci quai de pêche nekk le président jox parce que je suis conseiller le droit ma xool li fi nekk li fi doxal j'ai refusé mu jox ma redevance yi ma xool signé par Victor Diatta signé par ses envoyés de redevance yoo xam ne moom moo ko signé alors qu'il n'en a même pas le droit et il n'a pas mené cet argent là au trésor Mmh. Alors, monsieur les caméramans, je vous en prie, il faut, il faut prendre l'image claire pour au moins transmettre cette mission-là à la nation sénégalaise. Oui, ces redevances-là, c'était à hauteur de 35%. Le ka fourteen trente-sept pour cent lañ am mom moñu moñu loolu moñu suñu alal bo xam ne dañ koy jël dugal ko ci développement ka fourteen ngir xalé yi gis yi seen bopp xaalis boobu ci poche monsieur le maire est-ce que do yëg la mu ne du wax dañuy wax alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai attendu à ce qu'il a convoqué une session

ma ne ko ah waaw di toutes les preuves avec mon ami Souley Camara koo xam ne que moom moo mon jàpp tout toutes les fausses dansent là au niveau de la du marché allez ko ma ne ko daan démontrer au so vous allez voir monsieur Wagué le pays ma ne ko monsieur Wagué ces documents yaa leen autorisé wala mu ne musuma ko xam mais lui comme maay porté combat je vais le porter plainte Victor daa ko tëj lii la ma wax mu jox sa carte

Parce que c'est la mère du pouvoir. Mais ça ne passera pas. nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés directement déposer une plainte au niveau du tribunal de Gigan-Champ. Parce que Marca Magnon, on a été convoqué, comme je pas pas vient de le dire. D'abord, la première convocation, c'était le CV de Bignona, Badji.

Effectivement, nous avons répondu aussi ce que nous devons répondre. Qu'est-ce qu'il nous avait dit Voilà, maintenant j'ai toutes vos coordonnées. Demelen, ça m'a sur la Nadendje. Bataille. Donc, M. Djemari Sanya, Holme, c'est la justice sénégalaise, nous sommes pas train ndax yoon ah, ah yoon a maanaam am na ay moromam maire yoo pour même problème les ñu ils sont en prison tel que le maire de Thionckès il est en prison. Parce que c'est la même chose qu'il a fait. Mais pourquoi pas victoire Parce que c'est un ami à, euh, au, frère du président Macky Sall. C'est ce qu'il m'avait dit. Et donc peut-être Est-ce que l'on y a fait Kumba am ndey xaw comme Kumba amul baay je la ñu jugé Sénégal il faut bien donc c'est ça ah, voilà le plan pour wax tous les documents sont là la jeunesse de Kafondi, na le woon que man dara jaral ma fen gis ngeen fausse qui fausse quittance yi dem jël ay carnet ay bloc note diko bind diko ko c'est ces pauvres femmes la ñu fay leen xal dugal seen poche est-ce que lii yoon la. voilà les vrais tickets yi nga xam ne que moom c'est des tickets du trésor ci lii la ñu war a liggéey lii mooy dëgg ko

des emplois tu suñu quoi il faut du il faut du il faut du donc voilà la vérité monsieur Sagna donc comme que vous êtes là au moins nous comptons sur vous nous comptons franchement franchement sur vous au moins pour apporter une solution à ça vous n'êtes pas juste mais quand même je pense que vous pouvez apporter un grain de sel dans ce dossier je vous remercie monsieur Sagna Merci.

lenn laa bëgg gum wax non pas allez-y xaaral lenn la bëgg gum wax mooy déjà le fait que les partisans du maire ñëw fii di ñaan parole c'est un échec c'est un aveu d'échec ndax xam nga xam ngeen loolu lu muy les conseillers municipaux le conseil municipal ci seen monsieur le maire ñoom ñoo waroon créer ay occasion de débat

si la si l'équipe municipale avec à sa tête monsieur le maire avait un esprit démocratique qu'on lii du fi qu'on tey kon man du ma fi ñëw qu'on kon Pape du fi ñëw tey kon mbir mi réglé wu na yàgg na léegi nag wax depuis quand? 2014 dernière élection locale ci lañ ko depuis 2014. Est-ce que monsieur le maire a une seule fois organisé un débat démocratique Jamais depuis 2014, ça fait combien d'années 7 ans. Nous a organisé un débat démocratique. Dans la commune, ça est-ce que justice moi, tey ñu jox je vous pose la question est-ce que ci vous avez censuré la population de Kafountine vous leur avez interdit de débattre avec vous parce que pendant sept ans vous defuma ko defuma ko n'anyu pencho, n'anyu pencho, n'anyu pencho. nañu nañu Victor ne defuma ko defuma ko est-ce que est-ce que honnêtement en toute sincérité war ngeen ñëw taxaw fi di ñaan kat ñaar lay wax Paul ñaar lay wax benn bi moy li may proposer moy l'organisation d'un débat démocratique l'organisation d'un jury d'honneur d'un jury citoyen pour tous les camps de l'Union Tok. dans les pays démocratiques avons une tradition démocratique bu avons le poumon économique le poumon économique d'une commune le cœur économique d'une commune Nous avons une dans un, dans un pays démocratique, dans une commune démocratique, on a organiser un jury citoyen monsieur le maire à qui est conseiller, à qui expert les autres camps nous ñu des gens neutres qui sont spécialistes dans les domaines économistes etc., environnementalistes etc. Nous Nous d'accord euh, des termes de référence ñu ba sangam lañ koy organiser wala période sangam ça va prendre nangam jour ni lay ni ni lay mai, ñu valider démocratiquement ñu def ko man nous, la mën proposé proposer. et proposer ou ma pour proposer ko je le mets dans la corbeille et j'espère que ça va être pris en compte et si c'est pris en compte man personnellement je reviendrai nakte kafuntine moo ñu ko jaral kafuntine ñu ça c'est la première proposition parce que ça veut dire que Kafountine est en train de respirer la démocratie de Kafountine mouni respirer ça veut dire que il y a un débat imposé par la population les partisans du maire sont obligés de venir pas d'organiser un débat mais de venir au débat organisé par la population et donc et donc lii de rek affaire c'est les peuples qui font l'histoire Ce c'est pas un conseiller municipal c'est pas un maire c'est pas une équipe municipale mais Askanou Kafountine moi def l'histoire léegi nag bu que Askanou Kafountine dafa yaafuus toog ne tek, toog pat togne meng a ah, dinen jaar ci kawam Chikawa, quand le peuple se lève les oppresseurs commencent à trembler et les oppresseurs ont commencé à trembler les oppresseurs ont commencé à trembler Moi t'as ñu ñëw fii nit ki boo buggee mu noppi rek saagawul saagawul ça veut dire que bëggoo ñu dégg li donc félicitations à vous ni la voir continuer amul del Lukinao. am del Lukinao. donc Kendo del Lukinao. aujourd'hui on est ici il faut que nous am un programme pour ramener il y a des débats mais un programme pour ramener les forces vives de Kafountine le Kafountine digne parce qu'il y y a le Kafountine indigne moi je suis de euh, de la commune de Niassia c'est la même chose aussi il y a le Niasia digne et le Niasia indigne. Il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne. sàcc kat yi Kati, kat ceux qui se battent mu jaral quel que soit le camp auquel ils appartiennent nous c'est le Kafountine digne. c'est pourquoi je voudrais féliciter Lou, ñu sargal ñu jëmmal ñu Tachou, suñu Pape, principe le débat warul nekk PS la bokk APR rek PASTEF PDS bokkuma parti politique le débat mooy est-ce est-ce que quai de pêche bi niñ koy saytuwee dëppoo na ak njëriñu askanu Kafountine am déet loolu mooy débat bi débat bi nekkul xaw ma kii séeréer la kii pël la kii joolaa la kii wolof la kii xaw ma murit la tijaan la catholique la xaw ma musulman la débat bi du loolu débat bi mooy est li ëpp ci alalu Kafountine mu ngi des biir Kafountine mu ngi jëriñ askanu Kafountine est-ce que li ëpp ci alalu département Bignona askanu Bignona mu ngi siy gis boppam am déet loolu mooy débat bi moo tax nag moo tax nag moo tax nag bu ñu nangu nit yi di ñu réeral di fi wax ay waxu séeréer ak pulaar ak wolof ak joolaa ak jaaxanke duñu ay noon duñu ay noon ndaxte sàcc yi ñuy sàcc ci biir réew mi L'Oubel, ubal Loubel, qui département Bignona ak ci commune Kafountine toutes les ethnies sont concernées toutes les religions sont concernées donc bàyyiwul Benouasso, waaso tout le monde est impacté donc nous sommes nangu ñuy noonante suñu biir te fekk ne duñu ay nous donte bokkuñu waaso suñu non mooy ki nga xam ne mooy lekk alalu Kafountine ba tax mënuñu faju nu mu waré ba tax mënuñu am liggéey nu mu waré ba tax mënuñu am karangé nu mu waré ba tax érosion côtière euh, érosion en fait côtière bi di am ba tax école yé casse des tout petit waaw mu ngi noonu li moy wax ci wax ji moy comment est-ce qu'on peut avoir Kafountine ak quai de pêche bi nga xamné c'est sous-régional waxtuma sax national sous-régional waaw gal yi di dem ñuy tak seen bop ci biir ndax amuñu fuñu téré

Ce que vous savez, c'est qu'il y l'acte 3 de la décentralisation. Ce qui a l'acte 3 des malversations, l'acte 3 de la corruption, l'acte 3 du vol, l'acte 3 des détournements, ni moi de L'acte 3 de l'antidémocratisme, l'acte 3 d'une gestion ni sobre ni vertueuse. L'acte 3, bon, c'est un parti avant la patrie de Kafountine. Ni moi, je suis de peu de alors pour mu déposés, déposer une plainte il faut aller saisir l'OFNAC dans la corbeille il faut aller saisir l'OFNAC S'il n'a rien fait l'OFNAC aussi dira qu'il n'a rien fait Wow justice B, saisir l'OFNAC. ko dem leen xool dans la corbeille des propositions saisissez l'OFNAC Benenbi, bi bu fekkee mairie bi nangoul toog ak pour s'expliquer et ça c'est valable pour toutes les mairies je n'ai rien contre Victor je le connaissais même pas sànq ma ngi laajte kan moy turu maire bi xaw ma ko moom ci maire bi du ma ko donc je n'ai rien contre lui dama né quand dans une mairie ak fu mu munti nek ci Sénégal le maire ou l'équipe municipale ou les deux à la fois di saytu win bo xamné ne powul ak njëriñu askan wi il ne faut même pas hésiter à faire une campagne de boycott mais d'autres fayeti nous faisons fayeti tous les yéenay parce que quand on va jusqu'à créer d'accord il faux duty là ça devient extrêmement grave donc il ne faut pas hésiter un commerçant homme, xawma y a il y a un des y a des ñun monsieur le maire nag dañoo bëgg nga toog ñoom Saliou toog ñoom Pape toog gars yi génnee seen kayit ngeen expliqué ndaxte nag nañu waxante dëkk monsieur le maire nekkul dara lu dul suñu surga conseiller municipal nekul dara luddul suñu surga waye tu l'impression que ñun ñii leen fal di leen di fay ñun ñoy seen surga alors que du loolu même président de la république suñu surga la waxatuma la nag conseiller municipal donc décentralisation bi am fi Sénégal cette décentralisation marche par la tête Madame de nous ñuy suñu surga war Nous sommes ñu les di wax ñuy def ñoom ñuy Nous sommes tous di pour ñuy suñu mais quand moi am nous mu am kat wala ku bindu ci kërëm ko xamné mo lay ligéyal mu lay yilif ñom suñu lañu ñom suñu surga lañu ñoy seen jati gi sommes ñoy seen patron donc ñu ni moo dama japp ne war ngeen tamit xalaat bu ñeen ngeen waxee ba son ngeen xol yan yeneen plan d'action Kafountine ville morte waaw boycott xawma du paiement des redevances xawma de lan ak lan affaire bi saf sap parce que nak ils ne pourront pas tenir bu méttee ñu wax Victor Fansou Diatta dégage bu ngeen waxee ba son et ça c'est valable pour toutes les communes je ne le dis pas parce que c'est Victor. Quand dans une commune, quand dans une mairie, population, ils doivent pouvoir dire, monsieur le maire, dégage. ndaxte kat mënoo nekk si jàmm d'accord suñuy rongañ suñuy ñàkk di siim sa cere ñun ñu toog fii sonn amuñu dara nga buntu xatal d'accord nga bëgg a ak suñu alal. débat bi tamit La am lu muy posé. pour man ñaar moo war a ànd résistance et alternative maanaam bu ñu lay noot bu fekkee dañ lay noot nga nangu ko ragal na de man du ma jooyal ñoo xam ne ñu ngi leen di noot ñu xam ne ñu ngi leen di noot ba pare ne pat ne ragal boo gisee nooteel danga war a bëre mooy résistance waaye ci biir bëre bi danga war a xàll beneen yoon ndaxte lii xew euh, commune u Kafountine moo xew ci yeneen commune xam nga lan moo xew depuis 1960 dañoo tëgg kayitu Sénégal ci wàllu mairie ak ci yeneen fànn dañ ko tëgg ci anam yoo xam ne daanaka askan wi amul benn doon boo falee conseiller municipal bu ñu falee monsieur le maire amatoo ci ñoom benn dogal lu dul xaar beneen élection maanaam yéen ñi nga xam ne yéenay doole yi ñu jël seen doole dénk leen ko pour ñu dox seen soxla ñoom benn yoon juróomi at yu nekk ngeen am dogal ci ñoom est-ce que nous lions? Bon boo demee ci usine wala une entreprise si les, recruter mais est-ce que vous avez par la force Vous tant que 5 ans jotul que muy avez du fait que du fait que day les employés du peuple nous ñu pendant 5 ans nous dara le débat pour l'alternative vous nous ñu am commune Sénégal il faut qu'on ait un autre type de commune il faut qu'on ait un autre type de décentralisation par exemple il y a le veto populaire Madame, pour amener un projet important Pour amener nangam ci électeurs yi wala nangam ci askan wi pétition on bloque les choses et on clarifie les choses mais comment est que système bi Un am système pour amener. ne vous yi pas ñu ak Le système bi buñ ko comme mu munti donne buñ ko falé mom mo jël en otage la mairie mënu leen ci mom tous lu top toog di yuuxu moom mu ngi continuer di critiquer mom mo ngi continuer donc faut que ñu changer ko et ça ne concerne pas seulement Kafountine moi je suis heureux de gis Amna naa mbégte gis ku mel qui a un esprit ouvert c'est ça le débat man

di la fóotal di la raxasal ndap mais bo kontaanul da nga koy wax mais lan motax rew bo xamne mo ngi yaa denk at bu nek sa surga 4000 milliards amo sañ-sañ neko mais du deug du yoon at bu nek sur 100 candidats au baccalauréat 60 di échoué mais ñu xolat njàng bi lan motax tax ñuko wax ne sage famille yi doyuñu infirmiers yi doyuñu médecins yi nous sommes dans le département de Bignona hôpital régional bi gis ngeen nu mu mel ak mais nous avons nañ am à la tête desquels le président Macky Sall n'est d'accord ñu monsieur le maire donc il faut que nous changions le système bi ba population soit par le système du veto populaire soit par le système du référendum d'initiative populaire etc. on organise une consultation sur telle question sur telle question sur tel secteur moi d'ailleurs je suis très heureux d'avoir entendu qu'à Abéné il y a eu l'enquête l'enquête publique mais lolo pour moi, dañ ko systématisée dans la loi mais problème bo Amé nangam ci askan wi signé organiser un référendum populaire wala population sen population buñu tollé nous ci nangamu lim dans la commune un référendum d'initiative populaire sur la question du quai de poche, sur la question de l'éducation au niveau local etc. Donc, il faut que quand même la classe politique de ce pays-là nous pose les vrais débats. Affaire du Hiro, du Nayo, du Tessante. Mais il faut qu'on pose les vrais débats. Là, nous avons communiqué. Mais il y a depuis des années. Nous avons un dialogue, dialogue politique, dialogue national. Il y a plus de 500 et quelques communes. Ça veut dire que chaque commune est un espace de débat le président de la République est obligé d'organiser un dialogue national. Ça veut dire qu'il n'y a pas un dialogue dans les communes. Et la preuve par Kafountine, la preuve par toutes les communes. nga assemblée nationale nga HCCT conseil économique social et environnemental. 500 et quelques communes 45 conseils départementaux à mon débat à mon dialogue. Ça veut dire qu'en réalité ces institutions-là ne sont pas des institutions de dialogue ce sont des institutions qui c'est pour caser une clientèle politique c'est pour entretenir une clientèle politique Que ñun yéen yaa leen di entretenir te loolu dafa devons il faut dafa des a il dafa ce sont des arnaqueurs. il faut que auditions la mairie il faut auditer la mairie c'est-à-dire que même bu amul problème ça. l'audit c'est tout à fait naturel Madame yon, parce que tey jii nii ku fi une boutique wala dénkoon place mais bu wàccee da ngay compte, compter da ngay compte. donc audit bu ñu defee audit c'est pas que dana sàcc mais kan moom moom mairie bi yéen askan bi donc y a ngeen di xam li xew ci mairie bi il faut mu am un audit Donc, war ngeen sàkku en plus des propositions il y wax ngeen dolli si OFNAC ak et cetera et cetera ngeen dolli si une demande pour que on audite la mairie euh, il faut que ñu dem vers une, euh, une démocratie euh, beaucoup plus populaire Moi, a dans les communes il faut avoir un conseil de quartier en principe conseil de quartier il faut avoir un doudou. xam ngeen lan un un quartier bu nekk faut conseil de quartier mairie il faut régulièrement di rendre compte un deuxièmement le quartier il identifier ses priorités ba que wax ko mairie bi mais bi amul lu muy def faire après nous mën na def arbitrage parce que peut-être il y a 10 quartiers quartier bu nek ak bëgg mais sans francs la am mais ñu def arbitrage démocratiquement et après nous suivre les maires bi di en rapport avec les priorités définies par les quartiers mais qui définit la priorité ici c'est pas les quartiers c'est pas les populations c'est la mairie mais monsieur le maire ak lu mu intelligent intelligent intelligent et vous na ma il est intelligent mais nous, meunul gëna a wa waa Kafountine équipe municipale bi na ma y a d'autres doyens comme euh, le digne le patriote Saliou Sambou mais nous, ak lu ñu intelligent intelligent intelligent mën ñu gëna xam donc il faut donner la parole à askanu Kafountine et il faut réfléchir à des mécanismes tels que CDQ les conseils de quartier mën mais xam savez lan moo tax parce que de lu leer nous ko leen contrôler moo tax yéen itam il faut vous le système soit xam ne mairie bi bu beugul doxal les CDQ vous ngeen doxalal sen bopp sen CDQ. ngeen identifier les différents quartiers les différents villages mu am fa ay assemblée ay conseils de développement des quartiers ou des villages Vous xamné des da ngeen di jonction parce que nak li kenn mën ñaaru ko dàq bu fekke taxaw ngeen def ngeen ben sañ le maire l'équipe municipale ñu amati benen choix lu dul déglu leen comme yeen amulen jamm du fait de la gestion municipale du fait de la gestion du maire monsieur le maire waratul am jamm li ni waratu que gëcc régulièrement il faut Kafountine di rire rire de nous voulons que justice et lumière soient faites par rapport au quai de pêche nous voulons que état bi côtière nous voulons que le scandale de l'usine de Abéné bo minimum 10 km wara dox scandale Nous voulons que le scandale que constitue l'implantation d'une usine sans étude d'impact environnemental, scandale Bobo Djerfi et vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Euh, nous sommes venus avec euh, la vision citoyenne, avec euh, Wafrap, pour nous déglouler, pour nous nuyuler, pour nous sommes D'accord qu'il y ait deux Sénégal. Un Sénégal entièrement à part et un Sénégal à part entière. Et effectivement, la Casamance ne peut pas être un Sénégal entièrement à part. Casamance Sénégal le boc dafa war am Kédougou Sénégal la bok dafa wara am cërëm ba mot sëkk Goudiri Sénégal la bok dafa wara am cërëm ba mot sëkk Ranérou Ferlo Sénégal la bok dafa wara am cërëm ba mu mot sëkk waaye mënuñu am kumba am ndey ak kumba amul ndey ça ne peut plus continuer ça ne peut plus durer dafa doy et donc li moy suñu tank wan len ne déet ni ñuy démé ci yenen localité te askan way tax di len di jappalé ci c'est une revendication ñuy xex ñu ñëw di bokk ak ñom ci xex bi japp leen ne yeen ñun ci bokk ñu ngi ci un autre cafontine est possible un autre cafontine est nécessaire et ce cafontine là sera bâti par vous dignes fils et dignes filles de cafontine. et nous vous accompagnerons et nous vous accompagnerons nous vous accompagnerons dans cette lutte euh,

nañ tok fi nañ yendu ak mais fokk ñu ñaan leen euh, ngeen ñu euh, ñu dem effectivement li ñu gis ak yi ñu gis ci gi du ce n'est pas digne ce n'est pas digne du statut de Kafountine ce n'est pas digne du statut de Kafountine 10 milliards à bu c'est honteux fii kenn gisu fi 10 milliards fii kenn gisu fi 1 milliard fii kenn gisu fi un demi milliard et cela c'est inacceptable loolu mënatul continuer et vous avez raison vous avez raison de résister vous avez raison de résister suñu Max, suñu Baye, Saliou Samb mu kolon ko Ben fàttali mbokk Ben notel, nooteel donc bu leen tiit bu leen ragal li ngeen di def ni jaamu yàlla la métti na nag waaye jaamu yàlla la ndaxte nag dañ nooteel ba Kafountine jàkk ba Kafountine baax ba Kafountine mucc ayib moo gën suñu ay doom dem dee ci géej gi ci désert du Sahara ci mer Méditerranée et donc suñu bàyyi suñu mag Saliou Samb waxoon na ko dama koy dooleel bañ nooteel jaamu yàlla waaye itam wax na ko ci diine yoon ah ci xaat bi nga xam ne moo gën a am solo du jël jaas yi du jël fetal yi mooy njiit bu dëng nga wax ko dëgg te ci loolu ngeen nekk njiit bu dëng ngeen wax ko dëgg te ci loolu ngeen nekk léegi nag amul kenn koo xam ne moo leen di sauver déedéet kenn mënu leen yéen askanu Bignona yéen askanu Kafountine yéen a mën a sauver seen bop te li gis fi yéen a ngi ci yoon bi li gis fi sori ngeen ci yoon bi léegi nag waaw suñu classe gi war na ñew dooleel leen te inshallah allah niñ ko defee tay bu amaté leneen lu am solo comme une marche comme jury citoyen wala jury d'honneur bi waxone d'accord ñun dinañ ñew pour. Je rehausser d'accord cette marche le ce jury citoyen ou cette autre activité par notre présence donc mun ngeen compter ci vision citoyenne mun ngeen compter ci AFRAP pour notre soutien sans faille et en réalité on ne vous soutient pas on se soutient nous-mêmes parce que quand on dit ñun les localités du Sénégal dinañ ko les autres localités dinañ ko mais Tamba, Boubaroulé, les gens vont aller à Hambourg, vont, aller à Ziguinchon. Donc, on a intérêt à ce que Sénégal ait un équilibre. Ait un équilibre. Narté, vous voyez, nous sommes au Sénégal, mais Sénégal, hydrocéphalie, c'est dal. Madame Réou, il a fait lap. Am bop bu reuy bu tuddu Dakar. Narté, fenen fep. Kenn xolu ko, kenn topato ko, kenn saytu ko duma waré. Xol len Sénégal yaram bu loof yaram bu feebar bop bu reuy moy Dakar moy Sénégal est-ce que nous na est-ce que loolu meuna yag est-ce que nous c'est durable Nous mo am Sénégal ñun yi français yi ba topando bu fekkon sax dañu topando ñom lu ci lu français ay at ci mu yag na mu France France France France mu France d'al, mu ngi Paris et le désert français Paris et le désert français pour wane ne jamono yooyu Paris daal moo amoon Mon baron, mon moo yanjoon France yëpp li ci des baaxul on a l'impression que Sénégal c'est Dakar et le désert sénégalais Dakar et le désert sénégalais waaw Dakar daal moo tane li ci des dara moo tax xola kenn bëggul toog Kafountine kenn bëggul tok xawma Koubalan kenn bëggul toog Kolda kenn bëggul tok Goudiri kenn bëggul tok Bakel kenn bëggul tok xawma Salémata Tamba Ranérou Ferlo ak ñom sel Wa foota nee nañ foota Tampi waaye ñun itam nee nañ Kafountine Tampi Kafountine Tampi Kafountine Tampi Kafountine Tampi donc mbir mi daal dafa doy lii mënatul nekk vous avez notre total soutien vous avez notre soutien sans faille et sans condition